wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-'aliyyi al-'aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp di nuyu mbokk yi teewlu jotaay bi yépp te di leen jox seen wàccuwaay tey ñaanal mbokk jullit yépp jàmm te di ko sàkku ci yéen ñu del ci waat ci sunu jotaay ak yóbbalum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam ak jàngale ak di fàttali comme niñ ko baaxoo defee muy seen jotaay yóbbulum ndaw ñi bu ñu dikkee ci suñu bindu tey nag ginnaaw bu ñu jàngalee aji màkka ak ya ca aju yépp ak lenn ci mottali ci ginnaaw bu nit ki laabee wax baatu seede yi ngëneel gi ko suñu borom di defal kon tey sunu bindu tey mi ngi jàngale ci julli ak buñ la rawee ci julli nan nga koy fayee mu ne faslun lii ab dog la fii kayfiyatil xadaa'i ci melaw fay maa la nga xam ne faata faat na la xalfal imaam ci ginnaaw imaam mu ne kon bunt bi dafay jàngale bu la imaam rawee ci julli nan nga koy fayee mu ne aw jib waralal xalal maamumi ci maamum ay yàq diya ci mu fay maa la nga xam ne xadd faatahu faat na ko xalfa imaamin ci ginnaaw imaam xuddima jog jiitaleef na ko mu nekkat war na ci ki nga xamee ne imaam daf koy jiite imaam daf koy jiite waaye imaam daf ko raw ci julli gi bu imaam sëlmalee li war ci moom mu jóg fay la ko imaam rawee kon warut imaam sëlmal rek te fekk imaam raw na ko mu sëlmal kon li war mooy bu imaam sëlmalee te fekk mu raw ko ci julli gi mu jóg fay la ko imaam rawee mu ne as subu suba waxtuha aw waxtoom dalal axbaay fa fóore ya min saadixil fajri mu ngi tàmbalee ci dëggug fajar ilal isfaari ba ca set ga mu ne suba waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu fajar gi xare ndax waxtu julli ci ngir imaam Maalik dafa am ñaari xaaj xaaj bu njëkk ba moom lañuy tuddee moxtaar mooy waxtu yi nga xam ni moom lañ namm gën a baax ci ku ko julli xaajum ñaareel ba nag moom la ñuy tuddee ak daroori yi mooy nit ki bu amee ngànt ci julli ci waxtu wa mën a julli ci daroori yi bu dee nag dafa war a julli ci waxtu wa amul benn ngànt ba moxtaar ma jàll ba daroori yi dugg kon boobaa dafay am bàkkaar bu rëy rëy kon waxtu dafay dafay am moxtaar am daroori yi bu nee nag suba mi ngi tàmbalee fa fajar ga xare mooy manees na ko xamee ci bu fajar gi xaree nga gis mu tàmbalee sànni ay leer leer ci asamaan si tasaare ko tasaare leer gi tasaaroo ci asamaan si ci ngay xamee ni fajar kon jot na moxtaar mi dugg si na bu demee ba nga xamee ne nag yaa ngi jàkkaarloo ak nit xool ko gis xar kanamam xàmme ko ba ne xam ne kii diw la ca la moxtaar ma yam daruri yi tàmbalee foofu nag dem ba yegg ci bu catu jant bi génnee nga xam ne leer na ba catu jant bi génn foofu nag la daroor yi yem kon ku julleeti ginnaaw lool nag danga fay waaye julleetoo ci waxtu wa julleetoo ci moxtaar julleetoo ci daroor yi mu ne fa in yafut ka faat na la rakkaatun ab rakka min ca moom suba fa xum na nga jóg bi xayri takk biirin ci lu dul kàbbar isa boobee wajjix te nga dikk bi ummi kitaabi rabbika ci nday téere sa borom wa suuratin ak saar maa jëxrin ànd ak béral wala tax nut te déet ngay xunóot isa maa waxaa ndeem tàbbi woon na mu nekkoon kon la rawee ci jullik suba benn ràkka dangay jóg te boo jógee doo kàbbar dangay jóg rekk tàmbalee tari faatiha ak saar te wax ko ci kaw ndax jullit suba dañ koy wax ci kaw boo taree faatiha ak saar bul xunóot bu dee imaam xunóotoon na ràkk bu mujj te nga fekke ko kon yow booy fay sa ràkk bu njëkk boo taree faatiha ak saar ci kaw bul xunóot ndax xunóot gi imaam indi woon na ko te fekke nga ko kon noonu lañuy fayee julli suba bu la ci benn ràkka rawee ndax jullit suba moom benn ràkk rek la bu fekkee dañ la ci rawee ñaari ràkk nag nga xam ne fekkeewoo fa imaam di jàppee bëti omam ci rakkaam bu njëkk bu mujj ba kon dafay mel ni amoo ci julli gi benn rakk kon nag nam la faatee noonu nga koy fayee kon loolu mooy julli suba mu nekkat kat wa waxtu zuhri waxtu tisbaar min zawali samsi mi ngi tàmbalee fa jant ba rëccee li aaxaril xaamati ba ci mujjug taxawaay ba duuna nukrin ci lu dul weddi bu dee tisbaar nag mi ngi tàmbalee fi jant bu rëccee jant bu rëccee nag boo ko déggee mën nga koo xàmmee ci ne boo demee ba nga xamee ne ker gi nga xam te ni amoon na ci saw fenkoon na ci saw dem na ba ker ga jeex ba ker gi sosu ba geneen ker sosu ba jëlal ba jëlal bi ko ba wëlbati ko ci ngay xamee ne tisbaar dugg si na ker gi nga xam ne dafa fengoon saw bu demee ba nga xam ne dafa dem ba mat ba ker gi mat ba jeex ba ker sosuwaat nga xamee ne tisbaar moxtaalam dugg si na boo demee ba nga xamee ne nag sa takk ndeer ci jant bi boo ko xoolee dafay tolloo ak yow dafay tolloo ak sa jëmm nga xam ne boo xoolee takk ndeer bi da tolloo ak moom takk ndeer bi nag mën nga koo nattee ci sa ñeenti xasab ñeenti xasab boo ko nattee ci takk ndeer bi mooy wane ne takk ndeer bi mat na ni sa jëmm wala bu dee say ndëggu nga natt ndëggu mooy wane ne takk ndeer bi tolloo na ak sa jëmm bu boobaa nag fala moxtaar ma yam nga dugg ci daruri tisbaar daruri tisbaar nag day dem ba jant bi di bëgg a nga xam ne li des jant bi soo mëtul faa julli mëtul faa julli génn ak julli daruri tisbaar googu nag day dugg ci tàkkusaan gi ànd ak moom ba jant ba so kon loolu mooy moxtaaram tisbaar ak daruri mu ne nag we fa in yafut ka faat na la rakkaatun ab rakka min haa ca moom tisbaar fa xum na nga jóg bi xayri takbiirin ci ludut kàbbar wajix te nga dikkee bi xayri ummi ci gën ji ndey wa suratun ak saar serran ci yalu wajalis ta nga toog baax daxa ginnaaw ba waltata waltata saxat ta nga taaya waltu sallim ta nga sëlmal tan fu si kon nga sell mu nekkat bu fekkee julli tisbaar dañ la cee rawee benn rakka benn nga xam ne benn rakka rek lañ la ci rawee muy rakka bu njëkk ba lañ la rawee fekk nga ñetti rakka boo jógee moom it bu jóg naan allahu akbar da ngay jóg rek tàmbalee tari tari faatiha ak saar boo koy tari ci suuf nga koy tari ndax tisbaar kenn du ko wax ci kaw boo taree faatiha ak saar ci suuf dal di rek ko dem boo demee ba toog nga taaya daal di sëlmal kon buñ la rawee ci tisbaar benn rakka noonu nga koy fayee mu ne waxay su yafut ko fuñ la rawee min ci moom tisbaar ba tey rakka xataan ñaari rakka fa xum na nga jóg wa kabbir ta nga kàbbar watlu na nga jàng umma zil isaani nday rafet rafet ya nday boroom rafet rafet ya mooy fatiha mooy ndey borom rafet rafet yi moom la ko tuddee noonu wa suratun ak saar sirran ci yàllu wala tajlis ta bul toog isa boobee bal li fi nekk ji nanga nga dikke biraa bi xatihaa ci ñeenteel ba li tan fusa ngir nga wéy mu nekkat bu dee tisbaar kon dañ la rawee ñaari ràkk bu dee rawee nañ la ñaari ràkk boo jógee nag dangay jóg taxaw wax allahu akbar kon da ngay jóg taxaw kàbbar kon mu ñu la rawee benn rakka doo kàbbar da ngay jóg rek tari bu ñu la rawee ñaari rakka nag ci tisbaar dangay ngay jóg kàbbar wax allahu akbar jàng ci suuf waaye doo toog da jàng jàng faatiha ak saar rukkoo bolee ba sujjóot da ngay jógaat taxawaat jàngaat beneen rakka faatiha ak saar ci suuf daal di dem taaya daal di doole sëlmal ndax ñaari rakka lañ la ci rawee ñaari rakka yiñ la ci rawee imaam daf cee jàng faatiha ak saar kon yow boo jógee di fay ñaari rakka yooyu dangay ngay jóg wax allahu akbar jàng ñaari rakka yi bu nekk faatiha ak saar boole ko taaya daal di seen mën kon noonu lañuy ñuy fayee julli tisbaar bu ñu la ci rawee ñaari rakka julli moom bu ñu la ci rawee na la ci imaam rawee bu dee da ko faatiha ak saar la moom la rawee faatiha ak saar ngay boo koy fay moom ngay jàng bu dee ba mu koy jàng moom dafa wax ci suuf yow boo koy jàng ci jul sa julli di ko fay ci suuf nga koy wax bu dee daf koo wax ci kaw booy boo koy fay yow ci kaw nga koy wax kon noonu la ñuy fayee julli tisbaar bu dee dañ la ci rawee ñaari ràkka mu a wa aysu ma faatat foofu faatee rakkaxa ab rak salaasatu rakkaxa ñetti rakka min ha ca moom tisbaar ba tey fa xum na nga jug bi xëy takk biirin ci lu dut kàbbar wa aat te nga jàng da nga dikki rek ba tey faatixatan faatixa wa suratan ak saar sirran ci yàllu te um goog jublu na la wal tajlis san te nga toog zaata sa hurin ngay boromuk taaya wa xum te nga jóg wa jiif te nga dikkee bi rakk xatin ci ab rakka bi ummi zikri ci ndayi téere mooy mooy mooy faatiha wa suuratin ak saar bilaa julusin ci lu toog yajjir yi jog daw na summa taati topp nga dikke bi rakk xatin ci ab rakka bi ummi ci nday ja mooy ay faatiha faxat dong sirran ci yalu falxadaa kon fay ga xan ka ci yow saxat rot na mooy mat na rek mu ne kon bu fekkee dañ la rawee ñetti rakka ci julli tisbaar nga xam ne ñetti rakka lañ la rawee kon loo ci am benn rakk nga ci am kon boo ñëwee dangay jàng ci rakka ba nga xam ni moom nga njëkk a tari dangay jàng faatiha ak saar boo jàngee faatiha ak saar nga toog taaya kon ràkka bala imaam rawee benn ràkka ba nga fekkee ci imaam ak sa ràkkaam ñaareel bi nga njëkk ak sa ràkka bi nga njëkk a eh, am ci fay gi day nekk ñaari ràkka kon da ngay toog taaya ndax am nga ci imaam benn ràkka jugaat amaat sa benn ràkka kon day mel ni am nga ñaari ràkka kon ñaari ràkka li ci tegu mooy da toog taaya kon bu la imaam rawee ci julli tisbaar ñetti ràkk boo jógee doo wax allahu akbar da nga jóg rek tàmbalee tare ndax ñetti ràkka la rawee boo tàmbalee tari julli sa benn ràkk faatiha ak saar nga wax ko ci suuf dangay toog taaya boo toogee taaya nga jógaat jàng beneen ràkka faatiha ak saar wax ko ci suuf boo rukkooxee ba sujjóot doo toog da ngay jugaat boo jógee jàng faatiha dong ci suuf daal di taaya daal di sëlmal kon bu ñu la rawee ñetti ràkk ci tisbaar noonu nga koy fayee kon nag dangay jàpp ne yenn saa yi nga dégg ñu ne la boo jógee bul kàbbar wala boo jógee kàbbar ci ni nga ko mën a tënkee mooy dangay xam ne heure bu ñu la rawee ci julli ñetti ràkka boo jógee doo kàbbar da ngay jóg rek tàmbalee tari buñ la ci rawee ñaari rakka boo jógee da ngay kàbbar dangay ngay kàbbar tàmbalee tari buñ la ci rawee tamit benn rakka wala ñetti rakka boo jógee doo kàbbar bu dee ñaar boo jógee da ngay kàbbar kon noonu nga koy tënkee buñ la ci rawee benn bu tóol wala ñett boo jógee doo kàbbar buñ la rawee ñaar boo jógee da ngay kàbbar wala fekkee fekkee woo ci julli gi dara nga xam ne dañ la rawee ñeenti rakka yëpp wala bu dee julli suba ñu rawee la ñaari rakka yëpp boo jógee da ngay kàbbar doola tàmbalee noonu nga ko mën a tënkee ngir xam fi nga war a kàbbaree ak fi nga war a kon loolu mooy julli suba ak ay waxtoom ak julli tisbaar ak ay waxtoom ak nan lañ leen di fayee kon dañuy yemale fii suñuy kàddu incha allah rabbi ba sunu jotaay bii di ñëw ñu yeggale julli tàkkusaan ak julli timis ak julli gee incha allah rabbi kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm tey sàkku ci ñëpp ak ñaan di xam ne lu fi jub rekk ci bi sunu borom ju tedd ju kawee ja la lu fi dëng nag ci sunu jëmm yu xew yi la in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey